ak li nga jàkkaarloog nu mu munta toll ak lu ñu won ci gay doole warul fess sa bët te ñu ngi sant yalla bi ñu ak yeen wa askan wi ba tax ñu ne len li fi xew demb dafa motali rek li mo waxoon barki demb ci sama kaddu moy ay yu daje Dadi mbubbo justice ak atté pour woyal dogalu makisal wala ndigalu makisal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 suma nekké fi ba heure bi mëna a jàkkaarloog yow di wax mëna a Macky Sall di résister yow militant bi ya mako def kon kun ma nawla kuma naw nga kuma bëgg la nga kuma sop nga kon limay may waxtaan luy défar la waye bu ko jappé ni dama lay ngagn wala dama lay wañi yow militant bi yow ya wax ni yow projet bi mo la ñor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 bu ñëwul ci ko gis ni kër gaangi tak wala ñu delu sax dem toppatoo kër ga ñu continuer top ci matt ya lool la ñu def demb li xew demb yépp ñu ñu préparer la ab théâtre la bo xamné dañoo distribuer les rôles ku nekk ñu ne li nga ci def li ngay def li ngay def li ngay def ba ñoom duñu tal li xew tribunal ba duñu tal lo ak taxaw wane sen sen sen sen naqar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 wala mi ngi dox contre man mais dama lay bayyi ci bir dina dem ba xamni suñu wax téléphone sax yaag may enregistrer waye dama lay wax li nga bëgg a dégg ak li ma bëgg mu yegg ci ña yebal te lima li ma xam nga woma mo wax la li ma bëgg mu yegg ci ña nga yebal tok japp sama ñàmbur kon bu len japp ni ñun xamuñu lu bari xam ko waye du jamono joju lañu tollu tubaab dafa ne a malin malin et demi motax ñun dañu wara def focus yeen yeen ne focus yeen ne focus 2024 focus nak par rapport ak lan lañ koy naté moy projet bi ñu bok lan moko mëna galankor lan moko mënul gàllankoor lan mo ñu tere kandidatur. kan lan mo ñu mën a candidature lan ñu ci candidature waye nit bu dé da nga bëgg yépp ci ci garab ñu né la mango mi nga ca kaw kaw bu ñor xom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 koy dund ci aduna gi di noy ngelaw gi ñuy noddi yap ni mun nga ma nek téré nek candidat gisaguma ko mi nak fi ñu jëm xam nañ ko budé rek lay xex bi moy fexé ba rew mi dod rendre ko ingouvernable xam ngeen ni am nañu moy am nañ pass pass bi te mën nañ ko kon ma leen gëna soñu ñu gëna défar wat gis na ñenn ñi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 fim ne ni ça va se gagner au mental te lol la bëgg ci yeen na mental bi gëna dëgeur bu len dara xokatal bu len dara yëngal man de dara ma yëngal man mi Ousmane Sonko dara ma wañi te dara mënul eh, andi ñakare ci man ba am dut sax ci limay def te lol la bëgg ci suñu and ma patriote lol lay gëm nam ci suñu génération bi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 Nous avons fait place de l'obélisque F24 dafa di kuréel goo xam dafa dajale mbooleem seen acteurs yi ñuy parti politique ni mouvement citoyen ni société civile ni les syndicat lañu personnalités. Nous personnalité lañu des ñëpp nous avons fait des Sénégal en danger.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

ñi xex contre le troisième mandat wa yaangi ngi Macky Sall te ku ko fa defit ñu japp ni sa leader lako def lo te ñun musuñu ko sante kenn suñu toxalin ak suñu taxaway dafa musa nek ben kon ñu ngi lay ñaan non seulement nga mobiliser wu dem mais bo fa démé leader bo fa gis jappé ko sa leader nañu dooleelante pour mëna a jàmmarloo ak Macky Sall parce que tarikh Sénégal histoire Sénégal limu woné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 la victoire est proche. Je vous remercie.